bakoowan lii yàpp la am si ngoom la. nga ni. awu leen lii yàpp la am si ngoom la. lii yàpp la am si ngoom la. lii yàpp la am si ngoom la. lii yàpp la am si ngoom la. lii yàpp la am si ngoom la. lii yàpp la am si ngoom la. lii yàpp la am si ngoom la. <laughs> ooo oh, bakoowan bakoowan. aatu poli poli nii naa rompi dati rafet hey. yaa ngi <laughs> ma wan bakoowan. mooy number one barki yonent